Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbokk yi ñëwaat naa ci beneen vidéo incha allah man Lahad Ba sen seen xarit seen soppe seen rakk seen doom seen mag ñëwaat naa indi leen beneen vidéo incha allah tey dañuy togg suñu mais avant tout may souhaiter ñi sama eh, abonné yépp nga xam ne ñu waat maa leen di souhaiter bienvenue maa leen leen dal leen jàmm ak salaam ko xam tamit gan nga ci sen bi ma lay eh, souhaiter ba tey yooyu tamit bienvenue ma lay ñaan nga abonné yooyu tamit bu ko défé nga bok ci ci groupe bi inshallah wa té mom dañuy togg suñu reer ñu reer bu simple reer bu gaaw reer bu neex wa reer bu léger wa kay ñoko ko wa ñu and nak dem togg suñu reer bi inshallah suñu ingrédients suñu ingrédients nga dañuy am suñu ndawal pombiteer ki bagage yaangi non suñu bagage yaangi non noonu macha allah wa dañuy am suñu benn morceau ginaar rek bëgg tamit ma nga jël ñu suñu ko ci persil persil ñaari façon persil la am ak nana limon am ginger kané sofia am suñu laaj wa ñu am suñu laurier bu بويام rek daal di dëbb suñu nokos inshallah na ra piqué gëna ak nak ba mu saf ku nekk li nga am am xorom kaani sew ñu am suñu power bu mokk wa lo ci am rek yow lo am rek def ci defal lool dina ne inshallah suñu morso ginaar be morso bu rëy la wa ginaar gi ma macha allah <laughs> waaw suñu nokos bàyyi noonu dëbb nañ ko ba mu mokk léegi dañuy ñew daldi mariner suñu nokos inshallah ko defé ñu mëna mariner ginaar gi ba mu saf wa lo amé lo am yow ci sa marina rek baax na ku nekk li nga am rek defal lool wa mo gën tamit ñak bi wa defal li nga am rek inshallah léppay neex da wa togu mom amu lii la ku nekk daal togu amu frontière amu frontière léegi mu ngi noonu suñu nokos def nañ ci def nañ ci suñu poobar kanu sew suñu tuuti xorom waa def noonu suñu soza ñu ñu dal di ko mélanger def suñu aja waa ku nekk salam selon votre go bo yow bu dee ñeme nga lu farax yow yaa xam nu muy toll ku nekk dal sa ginnaaw nu mu toll noonu la kii léegi nag dañuy kii def tamit suñu limon waaw xam ngeen ne man dama bëgg limon <laughs> limon daw sama xarit la macha allah dama kaa bëgg moom dafa baax torop am na ay vitamine vitamine C man moom dama bëgg limon daanaka daal dama bëgg limon daal macha allah léegi daan jël suñu limon ndoxu limon boobu ñu def ci tuuti boo xam ne xaaju kuddu rek lay nekk ñu def ci suñu nokkos nokkos bi dañ koy mariner ba mu ba neex macha allah. moom nokkos bu neex moom daanaka mooy kii nga xam ginaar moom dafa sicc léegi dangay dañuy def suñu huile d'olive def suñu huile d'olive mu ngi noonu léegi xool lool tamit ba fan lay yow huile nga am rek boo amul huile d'olive huile boo am rek jiral boobu noonu incha allah waaw diwlin jaara am na niinal am na diwlin yu baax macha allah yëpp am na mais man ma préféré man ma préféré kii huile d'olive la te tamit ma amul huile d'olive tamit yooyu tamit dama kay dama kay kii waaw boo gisee ma utiliser huile d'olive xamal ne dama kaa yor ma ko yorul rek yee lay utiliser tamit yu baax la macha allah waaw nii na beeg jaara beeg lii léegi dañ suñu kii mais avant tout dañ koy dañ dañ dañ koy moom tamit limon tuuti tuuti rek pur mu xam ne yena ma gëna xam ginaar moom ay afeeram moom waaw doo ci tayal dara dara boo ci tayalee rek moom doo am lu la ci neex waaw léegi dañuy dañ limon neen ko noonu dañ koy waaw yëngal xam ne limo bi da koy dugg carrément waaw bu ko defee nag ñu ñëw commencé bismillah ñu piqué suñu ginaar ko roof noonu waaw bu la neexee tamit lii danga koy tracé bu ko defee comme bu dee bi xam nga rëy na nii léegi tracé bi eh, ci kaw boo ko tracé woon nga kii ko foofu tamit ba tey yow lu la neex nga ci am bii tamit ah neex na de macha allah mais hmm, nañ xool daal incha allah nañ dem rek ñu koy togg daal léegi nag ñu muusal ñu teg nañ ko suñu cin def nañ ko ci suñu cin léegi dañu ñu muusal suñu ginaar inchaallah daal di def ay quelque daggul moom ci biir moom tamit dakoy may buute moom machallah waaw ñi ko xam-xam nañ ko mu muuso euh, boo koy muusal daal nga sànni ci ay ay ay daggul moom daal leneen ngay am ñu muusal suñu ginaar inchaallah waa kay léegi daal suñu ginaar baa ngi ñu ko teg nii bëgg ko muusal waaw dinañu ñu xol suñu musal après fan lay mujjé inshallah waaw ah, kay léegi en attendant ñu musal ba paré ñu dagg ay quelques épices léegi na mu ngi ni suñu ginaar gi muus na masha allah xolo couleur bi musna na doore na amna couleur bi mu bëggoon léegi nak, mu ngi ni daggoon na ci ñu pomme de terre suñu frite waaw nañu lakkaale suñu frite en attendant liggéey fi moom doo ko doo def nii dangay def dangay boole liggéey bu ko defee mu mën a gaaw nga reer dañ wax léegi dangay laal fii laal fale bu ko defee mu gaaw lakkaale fii frite bi en attendant incha allah léegi ñu ñëw suñu soos suñu macédoine baa ngi noonu dagg nañ soble poobar bu desoon tuuti ak kaane bu sew bi moom laa jël ak su nokkos bi ma desaloon fee ci ginaar bi waaw léegi nag xoolal suñu macédoine yi macha allah bu la neexee danga koy muusal bu nga bàyyi ko nii man dama koy bàyyi nii pour après man mën ko sote ma mariner ko mook soble bi nga xam ne après dañuy ànd mook soble bi waaw léegi euh, dañuy mariner noonu suñu soble incha allah ñu teg ko à côté nga xam ne après duñu duñu duñu kii duñu jël du jël suñu temps daal incha allah. yow léegi bu la neexee lu la neex nga yokk tamit yo tam fii si sa soble lu la neex nga ci yokk lu la neex waaw man moom nii baax na nii baax na daal sinon tamit bu safee tamit ba ëpp xale ngay sóoraale bu dee nag ñu ñeme kaane am am ñi nga xam ne daal ñeme nañ kaane nga dagg sa kaane bu verte nga daal di ko yokk day gën a dolli guure yokk limon bi ndoxu limon tuuti jengalat incha oke, ok nak, nag xoolal couleur bi sauce bi rafet na may na ko legi na suñu ginar bi muus na ba pare doore na rafet na macha allah léegi dañuy dañuy toj ci ben nen mélanger fi fariñ def tuti tuti kii karam sew ak eh, poba dañuy def ɓeɗ boole ko siño fori bolanehe nga def ci tuuti kini hor léegi bolanehe tamit boo amee mbuur bu woow tamit ba tey moom li ñuy wa bread crumbs boobu tamit neex na ci lool waaw léegi dañuy jël dañuy batigi bi man bu zone bi lay jël daal di ko def ci ginaar gi noonu dañuy muusal suñu ginaar ba pare waa def ko ci nen bi kii ko bu baaxa baaxa baax ba nen bi dugg ko après nag ñu daal jël suñu fariñ ci te bu la neexee boo defee farine bi ba pare ba tey mën nga use bread crumbs bu dee am nga ko waaw bu dee bu la neexee bu la neexee tamit ginaar gi ni ko muusalee nii fii nga yem rek daal di saaf sa ginaar wala nga lakk ko sans dépend ci yow rek ku nekk goût bu la neex man man maa bëgg upgrade affaire bi nii rek waaw te tamit da ko jox beneen couleur te tamit day gën a neex macha allah xoolal doore bi muusal bi rek mu doore ni nga léegi na dañ koy suuy ba mu doy ba mu doy carrément waaw togg daal amu frontière daal ku nekk daal ni nga ni nga ko mënee rek waaw ni nga ko mënee nga koy kiye ba pare tamit nga koy jàng di ko jàng doo tool daa nga gestu nga am loo yokk si say guu nga bañ a yem ci benn guu rek waaw léegi nag mu ngi ni après ñu ñëw saaf suñu ginaar nag incha allah lagi gina ki mat na léegi ñu ëlbuti waat ko waaw nga xam ne côté yépp mat na léegi nag ñu ngi ñëw di ñu ngi di sa suñu ginaar ñu koy saaf gis nga couleur ba ngi ñëw bu baax a baax a baax allah dañ koy saaf ba mu am couleur bi ñu bëgg saaf ne pombiteer bi léegi ñu ngi saaf ginaar gi nga xam ne liggéey bi day gaaw pare parendoo incha allah gis इसमें खुराक गिना के machallah saaf nañ ko ba am nañ benn couleur bi machallah couleur <laughs> bi rafet na de jàll jàll léegi nag suñu soos baa ngi noonu sote neen ko nag ci tuuti diwlin rek diwlin boo xam ne des na ci eh, lakk eh, saaf ginaar gi moom lañuy wàññi rek ba mu des tuuti ñu sote suñu sote suñu soos bi xoolal soos bi macha allah moom tam dañ koy bàyyi mu doore डालियक ya, ya, ya, Yak, yakrek dari orne suñu pla wa orne suñu pla nak. wa orne bi tamit yow xor rek bo toggee sonu togu ni xana nga wara mëna orne pla bi ba ba mu rafet macha allah nañ daal uh. nañ yak suñu pla léegi ya, <laughs> ya, nak suñu plat baa ngi nii nak bii nag crédité la crédité yi la salade bi concombre bi ginaar bi la beneen côté bi sauce bi waaw nga sauce bi macha allah waaw doore na génne na couleuram ginar gi tam baa ginaar baa non, noonu kay xam kan naa ne jàllo jàllo kay moom laa <laughs> ci yërëm léegi gis nga suñu crédité yaa ngi noonu ak di pomme de terre frit tout rek laa def di frit ak li léegi daal gis ngeen ñoo ko gisandoo suñu togg baa ngi noonu togg nañ ba pare yàq nen maa ngi ko sama xarit yépp sama mbokk yépp sama papa yi sama mama sama doom sama jëkkër surtout waaw maa ngi ko kay macha allah nuyu naa